mbokki internet yi seetaan NGTV Sénégal ñu ngi leen di nuyu di leen wax ngeen dal ak jàmm abonné leen sunu chaîne ndax dafa jotee ay xibaar ak ay jàngat yu wér xibaar yi dañ koy doore ak lu soxal mbirum Mame Mbaye Niang ak Ousmane Sonko ñoom dañ di ki démb doon nañ amal seen ab àtte fële ca tribunal bu Dakaaru waaye yëf mu mujjoon na tàng lool ci kii di Ousmane Sonko moom nag ginnaaw bi nga xam ne wuy ji woon na euh, convocation boobu nga xam ne Mame Mbaye Niang convoqué na ko ginnaaw bi nga xam ni Ousmane Sonko tuumaloon na ko ni ko moom daal portail bi daf ko jàpp ay milliards yu bëree bëri. ginnaaw bi Ousmane Sonko doon wuy ji nag euh, Ousmane Sonko convent boobu bëri woon na coow lool ginnaaw bu mu demee bay dëpp sax fële ci corniche bi mu ñëwee bay tolloo ak fi nga xamante nii mooy RFM Ousmane Sonko. Euh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy waa DIP dañ koo waxoon pour mu jaar ci biir euh, li nga xam ne mooy euh, tunnel bi waaye Ousmane Sonko dafa bañ ni ci kaw lay jaar waaye sax dafay tourné ak convoi am dugg si biir dëkk bi Ousmane Sonko nag daal di leen di bañal loolu ñu waxoon ci lan ko ñoom daal di ñëw foqati ko toj li nga xam ni mooy vitrine am daal di koy dugal ci biir seen oto ñoom yóbbu ko ba biir si te kër góor gi ñu daal di koy wàcce foofu moom Ousmane Sonko ginnaaw boobu sax ci ngoon gi kii di Ousmane Sonko bëggoon na amal li nga xam ne mooy conférence de presse dem fekk ci ndaje moomu nga xam ni ñenn ci waa Pastef fi doon nañ koo amal waaye ñii di yi mujj ko nangul loolu mooy génn boobu mbëggoon cité génn cité kër góor gi ñoom nangu mujj ñu ko nangul loolu ba Ousmane Sonko dañ koo mujjee gaase li nga xam ne mooy ay lacrymogène moom ak moom ak ay garde ñu daal di demaat dugg seen kër toog ba ci guddi gi Ousmane Sonko sax moom daal dinay amal li nga xam ni mooy benn déclaration di xam la ni daal moom jamono jii dafa nekk ci li nga xam ne mooy résidence waaye ba tax mënul génn moom ñaawlu na ko bu baax a baax a baax seen xam ne daal lii nii bu nekkoon ci réew mi doxal droit kon li nga xamante ni ñoom ñi ngi dëkk di ko def duñ ko ko def waaye niki ba tey waaye Ousmane Sonko daal mi nga xam le ni moom xeex bi dafay wéy ca dina génnee ay preuve yi nga xamante ni mi ngi koy tuumaal kii di Mame Mbaye Niang leneen ci wàllum xibaar fajiri ni ki tey ñoom doon nañ amal seen toogaanu ñaxtu fële ca seen e, buntu wal fajiri di xam leen ni daal ginnaaw bi ñu yëkkatee ay kàddu kii nga xamante ni mooy e, directeur général ba di e, Cheikh ñas xam leen ni daal état dafa yàgg di xeex groupe fajiri loolu njëkkul tey yàgg na di ko dund ak seen waajur wa di Lamine Niass waaye Walfadjri moom dafay wëy rek di nekk ca kanam naka noonu tamit kii di Pape Alé moom it jël na fa kàddu. waaye mi ngi interpellé bu baax a baax ñi nga xamante ni mooy euh, kilifa diine yi ngir ñu wax ci ni nga xamante ni réew mi mi ngi koy doxee balaa làmbaay di ñaaw. leneen ci wàllum xibaar sunu làmb tey daal dinay fësal kii di Balla Gaye numéro 2 45 jours ginnaaw bi nga xam ni bëri na ak kii di Boy Niang numéro 2 moom Balla Gaye 2 kenn xamul fan la nekk ñuy laaj ba xam dafa nekk ci gàddaay comme ni mu ko defoon ginnaaw bi nga xam ni Eumeu Sène daan na ko. wala dafay nekk di defarwaat ngir mën a ñëwaat en force moom la lion di Guédiawaye Balla Gaye numéro 2 ginnaaw bi nga xam ni bëre na ak kii di boo ñaa numéro 2 boo Niang am ndam si kawam ñuy laaj Balla Gaye numéro 2 fan la nekk am